liggéeyu entrepreneur moom surtout début yu amul amul euh, amul heure wàcc amul heure xëy euh, ça fait ça fait cinq ans pour jours que la marque euh, muy exister dañuy dañuy liggéey su ko su ko laajee la la boutique et l'atelier démarre à 9 h et puis euh, de 9h30 à 18h30 mooy ouverture officielle yi fii la ñuy nekk di euh, liggéey. c'est une marque de vêtements qui existe depuis euh, depuis cinq ans juróomi juróomi at et on est dans la recherche de matière dañuy dañuy liggéey tissu yi ñuy fekk Afrique yi nga xamante ne nii coton bi fii lañ koy liggéeyee fii lañ koy cuupee fii lañ koy ràbbee. Euh, ça fait cinq ans ñu commencé activité yi ah on a on a démarré tout petit hmm, yàlla yàlla def euh, affaire yi euh, développé ñuy ñefe on a eu à faire énormément de de et puis ba ñi ngi continuer di góorgóorlu du ñefe c'est Nunu Design c'est encore un bébé pour Nunu Senteur aussi. li may wax bés bu nekk 8 mars bés bu nekk la ci jigéen ñi parce que jigéen ñu Sénégal ay jigéen ñu jàmbaar lañ. Euh, ñu tànn benn bés pour ñu wax suñuy droit parce que waxtaane ko parce que au fond c'est ça c'est c'est parler des droits des femmes am na solo xool li fi xewoon daaw daawaati jéeg euh, lan la ñu bëggoon def lan la ñu jot def boole loolu yëpp xool li ñuy jëmle kanam donc ku ne ku ne 8 mars ne euh, ne droit des femmes droit des femmes nag du ay revendication kese mooy jikko mooy nangu liggéey mooy xool ñun ban rôle la ñuy jouer ci société bi mooy je veux dire li ñuy mëne comme activité ban impact la am ci économie Sénégal mooy ñun yan femme de valeur la ñu lan la ñuy ñan la ñuy inspirer ak lan lañuy ñuy euh, je veux dire la ñuy la ñuy won yeneen génération yi nga xam ne ñoo ci ñoo ci topp dinañ ko waxtaanee évidemment mars y aura beaucoup de choses qui vont qui vont se passer mais li li li jota li li am solo lu ne ñi war a war a téye rek mooy c'est pour parler des droits des femmes et ku ne droit des femmes mooy jigéen jàmbaar jigéen fulla jigéen fayda euh, ñu gën a jox jigéen gëddam gën ko respecté euh, jigéen du ma sa doon góor leer na mais xam tamit ne jigéen jàmbaar ñu ngi Sénégal ñi ngi Afrique ñu ngi fu ne ci monde bi et day baax yenn saa yi ñu toog waxtaane ko ok tey tey euh, nunu en tant qu'entrepreneur boo doon conseiller femmes yi ban conseil nga leen di jox Euh, góorgóorlu vivre de leur rêve euh, dundee yëg-yëg euh, ku si mënti nekk si ñoom ci foo mënti nekk kay jaay caaf ak man mii di ñaw ñun ñoo yem la seule différence mooy moom day jaay caaf man am naa soxla si caaf man may ñaw mu am soxla si ñaw donc toutes ces femmes la se liñ leen di mën a wax mooy vivez de vos rêves li seen xol yëg de leen koy doxee euh, nangu leen coono euh, reste digne en toutes circonstances euh, inspirer le monde en bien en tout cas et puis je parce que jigéen su teddee jigéen li muy liggéey su su su su su su naatee Afrique naat monde bi naat ba di leen gërëm di leen di leen sant di di encourager Leuz TV Euh, on a besoin de jeunes dynamiques ay jeunes yuy porter ay euh, ay rêves même su dee moom je veux dire ay góor ñoo fa nekk benn jigéen mu ngi interviewé di wax euh, jigéenu Sénégal jigéenu Afrique ni ñu gëm suñuy gënt vivons de nos rêves osons faire des choses qu'on aime nañuy nañuy nangu di def. di nangul suñu bopp di dundee yi nga xam ne moo ñuy bëggal nañu tànn ay métiers yi nga xamante ne nii daf ñu daf ñu neex et puis euh, voilà 8 mars c'est un seul jour mais sachez que 8 mars c'est chaque jour pour jaaykatu gerte bi jaaykatu sow bi jaaykatu jën bi kiy yeewu fajar kiy jaay fonde ak kiy jaay sandwich ci ngoon ñoom ñëpp a yem di leen ne jërëjëf <laughs>